rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi laxirati hasanatan wa qina asaba annar rabbana hab min aswajina wa qurrata ahyunin waj'alna lilmuttaqina imama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi tedd yi mbokki gox koy ñu baaxoo di ñu topp fii ba bitim réew noo ngi leen di siyaarewaat bu baax kàddu gaa ngi beeko fii ci Touba Kaolack ak seen mbokkum taalibe Ibrahima Seck di del siwaat ci xasida sëriñ tubaa yi ñu baaxoo di ko ànd ak yéen ñu indiwaat geneen xasida ci xasida sëriñ tubaa yi te mooy waskuro laaha fi doo maxdudaat ndax waxoon nañ leen ne mboolem jamono yu ne rek dafa mel ni day dox ci actualité léeg-léeg moo xam ñu yegg ci gàmm moo xam ñu yegg ci euh, rajabul fardi moo xam ñu yegg ci sol da ak weer wu ci mën a doon nag wala sol hijja dañuy indi xasida yi nga xam ne sëñ bi da ko cee taalif di ko jàngat di ko jàngat di ko jàngat di ko nafar nga xam ne nafar lay nekk waa doona loo xam ne sax lu ñuy jàngale la ndax xasida yi moom sëñ bi rek xam ne ci jul waaye dañ koy nafaralante ngir ñi nga xam ne xamuñ ko woon man ko cee xamaan man cee yokkoo seenu xam-xam ak seenu déggin ndax am na ci loo xam ne moom déggin bi moo koy laaj waaye ay baati arab yi rek la ñuy leeral ndax yonent bi dafa wax ne man yuridullahu bi xayran yufiqu fi diine yàlla day bu namee ci nit aw yu te koy déggaloo diina kon nit ki dana jàng téere yëpp ba woon na leef waaye du dégg nit ki dana jàng tuuti gën a dégg ku jàng téere yëpp pour noonu rek la mel moo tax li baat yi rek la ñuy tekki waaye dëgg-dëgg max naa bi moom ak la ci sëñ bi dëxañ loolu moom rek moo xam kon bu ko defee loolu itam ñu bàyyi wàlle ko xel ñi indi xasida sëñ Tuubaa gi tudd waskuro laaha fii ayaamin mahdudatin moom la tëggee xasida gi nga xam ne weer wi la ko bind mooy waskurulaa fi ay marudaatin la muy tekk mi ngi ci suuratu albaqara te mooy suñ borom nee na waskurulaa fi ay daatin mooy fan yi ñu xam muy fan yoo xam ne yu ñu xam la waaye yu ñu lim la ngir néewam ndax arab moom lépp lu néew rek da koy lim mooy ñetti fan yi nga xam ne ci lañuy sànni jamra jamratul xaq ba mooy foofee ca min nan gannaaw ba nga xamee ne bisub tabaski gi wëy na ñetti fan ya cee toppaat muy ñetti fan yooye moom lay suñ borom di wax foo gisee ci alxuraan mu ne ayaamun maxluumaat rek wala ayaamun maxdudaat rek mu ngi ci jublu fan yooyee xalaa kulli haal ak lu mën a doon rek xasidi goog nag sëriñ bi da ko tëggee waskroola fi amin maxdudaatin ñi gën koo xamee ci wajaxtu kulliya saa xurbin min allahi xillan wahibban wasaa sawqin ilallahi bu ko defee kon sëriñ bi tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim mu ne bismillahi maa ngi tàmbali sama xasida gi ci turu yàlla arrahmaan yi buur bay xéewalaakoon bépp mbindeef ci àdduna arrahim buur bay ajiram ku ko soob ci alaxira mu ne allahuma yow buur bi maa ngi lay ñaan bi xaqi wàcci laahi saq jëmu jëw yàlla taala jay aji kawe alkarimi jay aji tedd li ma lay ñaan mooy salli maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal wa sallim ta nga dolli wóolu wa baarik ta nga dolli barke man ci kaw yonente bi nga xam ne ansalta wàccee nga yow yàlla ali ci moom xawluka sa wax ji nga wax ne waskuro dee leen tudd allah yàlla di ko fàttaliku fi ayaamin ci lu bari fi ayaamin ci bis yi ci ay bis mawdoo daatin yët yuñ lim ngir niiwaay ndax arab moom lépp lu niiw rek lépp lu ñuy lim rek maanaam lu niiw la nga xam ne mi ngi ci jublu maanaam bis ba ñuy tëbaski bis boobu yow mu moxloom la waaye du yowmul maxdoot bis ba ca topp nag ba ca toppa ba ca toppaat nga xam ne fukki fan ci weeru tabaski sil hijja ak ñeent ñeenteel ba boobu bis nag bis la boo xam ne maxduud la maanaam bis la bu ñuy lim waaye bokkut ak yow mu maxloom yow mu maxloom mooy bisu tabaski waaye nag dañ ci sànni jamra waaye nag duñ ko kontaale yow mu maxloom lañ koy wax waaye nag bu dee nag fukki fan ak ñeenteel ba kooku yawmul maxdood la maanaam bis la bu ñuy limaale ci sànni jamra maanaam tey boo ko sànnee jamra dañ ko limaale ndax moom nga mujjee waaye nag bis bii di bisu tëj kooku yawmu maxluum la kon ñoom ñaar foo jàngee ci alxuraan rek mu ne yawma ayaamun maxluumaatin wala ayaamin maxduudaatin jàppal na ñeenti fan yooyu lañ ci jublu ñetti fan yooyu gannaaw ba nga xam ne bisu tëj ki goy na nga xam ne ñaar yooyu rek ayaamun maxluumaatin ayaamun maxduudaatin bis yooyu rek lañ ci jublu moom la sa njëkk tëjee xasida gi gannaaw bi mu tàmbalee ci turu yàlla nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dig leen moom la jëfandikoo yonent bi nee na bépp mbir mu ngeen di tàmbali tam am solo rek neen ko tàmbali bismillaahi rahmaani rahiim yàlla mi nga xam ne muy xewalaa kon bépp mi ndéef ci àdduna waaye tey ajiram ku ko soob ci àllaaxira nga xam ne arrahmaani yàgg nañ ko nettali mooy ci àdduna rek la xaj waaye xajul yowmal xiyaam rahim yi itam yowmal xiyaam rek la xaj waaye nag xaju fii ci àdduna moo tax gis nga rahmaan tëgg ak faalaan bii tëgg ak faal nga xam ne nit ki léeg-léeg ñu ne xaddabaan wala farxaan wala sakraan mandina wala diw dee mer na ñëkkal na kar kanam nga xam ne loolu du ci dëkk day yàgg rek mu dëñ yàlla itam ñëpp lay xéwale a ahiba yi wax daa yi ñi ko gëm ak ñi koy wedd ñëpp da leen di bokk di leen xéwale fii ci kaw suuf kon ñoom ñëpp arrahman ñëpp ci yem léeg-léeg daa daa ko faral di wax lu bari mooy léeg-léeg nga gis ñaari borom tool kii gëm yàlla kii gëmul yàlla waaye ki gëmul yàlla gën a meññi la tool gën a sax la tool loolu nag nattuk suñu borom la tabaraka taala ngir mu xool bi fan la toll ci bëgg borom kon ñu ngi ko defoon ci yàlla Ibrahima gannaaw bi tambali tàmbali bismillahi rahmaani rahim mu ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan ci xàq sa jëmmu yow yàlla sa jëmmu ji nga xam ne mooy jëmmu ji kawe waaye nag tey aji tedd maa ngi lay ñaan li ma lay ñaan mooy salli maa ngi lay ñaan nga dolli xéwal wa salim da nga dolli góolu wa barik te nga dolli barke ala man ci kaw yonente bi nga xam ne ansal ta wàccee nga ali ci moom xawlu ko yow yàlla sa wax ji nga wax ne waskuro de leen tudd allah yàlla fii ayaamin ci bis yi maxdudaat ni yéen yu ñu lim ngir niiwaay nga xam ne arab fu mu waxee bis yu néew rek bis yu ñu lim rek mooy bëriwul ndax ñetti bis yooyu la ci jublu gannaaw ba nga xamee ne bisub tabaski wëy na bis ba ca topp ba ca toppaat ba ca toppaat ñett yooyu nga xam ne mooy fan yu ñee sànni euh, fan yu ñee sànni jabar ca min na fan yooyu la ci léegi nag sëñ tubaa dafay jël waaw gi ne wajaxtu kulliye saa qurbin minallahi noonu la koy toppee ba taslimu baqin ala xeyril wara wala xisbin doho walal mustaqilillahi nga xam ne ma ngay daanoo ci euh, fii ayamin mahduda tin muy taawul néegóog te muy taajoor goog ñi gën koo xam ci taajoor mooy taawu néegoog moom lay wax ne taslimu baax na ala xayril wara waxala xisbin loxo wa alal mustaqilillahi kon noonu rek la demee kon ñi ànd ko yéen ci dawal bu gaaw rek incha allah mu ne maa ngi lay ñaan nga dolli xel mucc waaye nag gu ànd koog barte ci kii nga xam ne wàccee nga ci moom ca wax ji nga wax ne waskuro laa fi ak maxludaatim mel ne dañ koo laaj tur yi nag mu ne sayid naa kooku mooy sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turo mooy muhammad waaye nag salaatu kooku ali na ñëw ba ci waa këram wa sax bi ak saabaan kama jaxalta comme ni nga defee yow yàlla xaasil abyaat yi bayit almaxoosa yedd yu ñu tibbee yu ñu tibbee mooy yu ñu jëlee rek min hurufihi mu bàyyi ko ci xaraf yooyee te mooy waskuro laa fi añ maxdudatin ahaba muy muy li nga gën a sopp illayka jëm jëm ci yow maanaam li jëm ci yow ay xeeti jaamu yàlla ay xeeti cant yépp maanaam yii na bokk ci yi nga gën a sopp wala gii na doon gi nga gën a sopp maanaam mu jëm ci yow ci ay xeeti mbindi ak yu nu mel mu ne aabu mu doon li nga gën a sopp ili ka jëm ci yow yaa akram yow mi nga xam ne yaay yaw yaay aji tedd ji waaye nag wa ila rasulika ak jëmi ci sab yonent bi maanaam yonent bi itam abdiyaat yi sëñ Tuubaa di taalif muy xasida gi maanaam yonent bi na doon li mu gën a bëgg li mu gën a sopp ci xëyti ak cant ak ak ak tawhid mu ne xëlli yàlla na doole nekk ci yonent bi salaamaaka sa dolli xéewal ak mucc yow yàlla waaye nag bi aalihi ànd ko waa këram wa sax bi ak saabaami min xayri ak lu dul ñoom sax minal abiyaati ci bayit ci bayit alati yi nga xam ne xiilaat waxeesoon na ko xablaha ci lu jiitu yaa sakoor yow mi nga xam ne yaay santaakoon bi mu ne yow yàlla gannaaw bi nga xamee ne julli na ci yonent bi alayhi salaam comme ni mu baaxoo di ko defee ni ko yonent bi diglee ci addis waaye yàlla njëkk koo digle ne yaa ayyuhaa allaziina aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliiman yéen ñi leen julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam tey sëlmal ci yonent mu ne yow yàlla nag comme ni nga defee yii bëyit mu mu doon bayit yoo xam ne dañ ko tibbee ci xaraf yooyu nga xam ne moom jëmi suñ bi da ko tibbee ci xaraf yi waskuro la fi am maxtu daata bi mu ne yàlla lay ñaan nag mu def ko maanaam xasida ci jëm boppam muy li yàlla gën a bëgg maanaam loo xam ne dañ koy jaamu yàlla di ko cant di ko jëmee ci yàlla maanaam yàlla xasida gi na ko gënal na gën a bëgg na ko gën a bëgg waaye nag yonent bi itam na ko gënal na ko gën a sopp na ko gën a bëgg mu daal jul ci yonent bi ne yàlla na doole nekk ci yonent bi dolli xéewalug yàlla ak dolli musalam waaye nag moo ki waa këram ak i ay saabaam yëpp waaye lu dul lu dul xasida gi sax euh, ci ay abyaat yi nga xam ne waxoon naa ko ci lu jiitu waaye nag moo wax ko yàlla nga xam ne lépp da ko daan def rek ci yàlla di ko wéetal di ko def tawhid xeeti bàkki ak i cant nga xam ne xasida xasida ak tawhid la ak xasida ak cant la tawhid moo ci fees dell waaye nag ak xasida ak cant moo tax ne min xëyri yi ak lu dul lool sax minal abyaat yi ci ay abyaat alati ya nga xam ne xiilaat waxee son na ko mooy waxee son na ko mu jëmi sëñ bi mi nga xam ne yaay santaakoon mi nga xam ne ay bayit yoo xam ne wax wax waxoon naa la ko yow yàlla di li ci cant euh, di li ci bàkk di li ci kañ lu dul yii sax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dolli xiwul ak mucc waaye nag na doon xasida goo xam ne mooy mbooleem ay cant yu ñu lay def di ko jëmale ci yow yii na la ci gënal waaye na nga gën a sopp xasida gi waaye yonent bi itam na gën a sopp xasida gi xam nga gis na xasida gi xasida gu ama am solo la waaye xasida gu mucc ayib la waaye xasida la goo xam ne xasida gu yéeme-yéeme la buñ koy jàngat ay mbiram xasida nag fii la tàmbee mu ne wajjaxtu kulliya saa xurbin min allahi xillan wa xibban wa saa sawqin ilallaahi nga xam ne e, dafa tàmbale rek jox yàlla tawhid bu mat sëkk ndax xasida yi tàmbalee wajjaxtu bari nañ lu demee ni wajjaxtu kulli lil wadoodi sammadi wajjaxtu wàcc yi li man takk yi moo baanaa ak wajjaxtu gi noonu nga koy toppee ak wajjaxtu euh, wakkaanaa xan wajjaxtu kulliye bi am din wa sukóor sëñ tubaa li mu taalif ci xasida yoo xam ne da koo tàmbale ci wajjaxtu rek kenn xamu nuñ tol waxuma laan nag yi muy yi muy yi yi muy wax ci biit ay wajjaxtu waaye nag yi nga xam ne da koo tàmbale wajjaxtu rek xasida yoolu kenn mën a ko lim moo tax mu ne wajjaxtu jooyal naa muy jëmali naa mooy li yonti yaa ma waxoon ne inni wajjaxtu wacciya li la ci fattara samawati wala anifan wa ma ana min musrikin wajjaxtu foo ko waxee rek mooy ku jox yàlla tawxid la mu moom mooy koo xam ne yàlla moom yëpp jox nga ko la yàlla moom yëpp jox ko ko moo tax ma ne wajjaxtu jëmale naa kulliye sama lépp sa xor bin mbir mbopp may borom ak jaamu nag minallahi yàlla waaye nag xillan ma doon ab xaritam wa hibban doon ab soppem waaye nag wasaa sawxin may borom ak cofeel nag may borom ak cofeel ilallahi jëm ci yàlla ndax jaamu yàlla gune am gu ca jaamu yàlla ga moo ci gën a féete kaw moo ci gën jaamu yàlla gooy def maanaam am sawxu nga xam ne doo am benn yëg-yëg doo am benn caf nga ku dul bëgg sa borom tabaraka wa kon bi mu joxe yàlla lépp wane na day jaamu yàlla rek waaye nag doon xaritam ndax yàlla damay faral di wax ne xaritub Ibrahima la waaye nag buntub xarit yàlla tëjut ko ñëpp la ko tijjil ka jaar fa Ibrahima jaaroon rek suñu borom jàpp na la ab xarit buntu sopp yàlla tëjut ko ku jaar fu yonent bi jaaroon rek doon nga soppeeb yàlla kon ay bunt lañ yoo ne yàlla mi ko doon maye ba léegi mu ngi koy maye kon sëñ Tuubaa dafa doon xillu doon hibbu muy ñaar yëpp léeg-léeg mu ne yonent bi sama xarit la sama soppi la léeg-léeg mu yàlla sama xarit la sama soppi la waaye bu ne alxabdu moom ci rek lay dellu kooku moom yàlla rek bu ne alxadim ci yonent bi nag waaye bu ne alxalilul hibbu kooku moom day yonent bi mën na ko am yàlla mën na ko am nga xam ne alabdul xadim moom dañ koy séddoo kii xadim gi la moom mu yonent bi alabdu gi yàlla waaye nag al euh, alxillu ak hibbu moom kooku kenn ku nekk ñoom ñaar ñoom ñaar mën na ko am moo tax ma ne wajjaxtu jëmale naa kulli sama lépp saa xurbin a moo may borom ak jaamu nag minallahi yàlla waaye na xillan ma doon ak xaritam wa hibban ak soppam waaye nag wasaasoo xen may borom ak cofel nag ila laa jëm ci nga xam ne léegi nag euh, caf ngay jaamu yàlla moom la am nga xam ne du ma am benn yëg-yëg du ma am benn bëgg du ma am benn te ku du yàlla rek ci yàlla laa béy ko waaye ci yàlla rek laa jëm kon nag yàlla képp ku ñëw te jaaroo ci yoonam te yow ma alastu bi rabbikum la nga si ñëwoon mooy danga nga jaamu balaa bo ah, kay boo wàcce ci suuf waaye nag nga wàcc ci suuf rek jaaxu la neex kon nag minallaay xam ngeen ne sëñ Tuubaa moom ku nekk xam ne ñëpp ci yàlla lañ bee ko waaye sëñ Tuubaa moom bim na coow ci kaw suuf rek dafa jël léppam jox ko yàlla nam ko waxee ca euh, xëcidaam ko ci ko madul foo seeni ca xarafu jarab yu bëri yooyu mu ne xillan wa xibban wa saasawxin ilallahi mu ne allahu akbaru mima kuntu afxalahu wa lastu axsa wala arjo siwallahi mu ne allahu yàlla ak bëru aj màgg la gis nga tawhid gu may jox yàlla mi ma ci lépp loo xam ne kuntu nekkoon naa afaluhu di ko def walastu man sëñ tubaa de déet man sëñ tubaa axsa may ragal euh, kudut yàlla waaye nag wala arjo du ma yaakaar itam si wallahi kudut yàlla walastu déet man sëñ tubaa axsa may aji ragal si wallahi kudut yàlla waaye nag wala arjo man sëñ tubaa déet may yaakaar itam si wallahi kudut yàlla bu la neexee itam nga jëf firi moom mu ne yàlla de ku màgg la yàlla de lépp lu ma doon def rek ak fu ma ko mën a defee rek seede na ko lépp lu ma mën a def rek nga xam ne loolu xeetu toroxlu la euh, xam ne ne yàlla moo sañ lépp jaam bi mu juddoo ba ba muy xàmme ba ba muy doon mag lépp lu lu fi jaam bi mos a def suñu borom xam na ko seede na ko fekkee na ko lépp mu ko tiim nga xam ne xabdan qadiman wala muhayminu saahidu yàlla dafa jàkkaarloo lépp tiim lépp moo tax ma ne yàlla de dëgg-dëgg ku màgg la mbooleem lu ma mos a def yëpp yàlla gis na ko xam na ko lépp loo xam ne nekkoon naa di ko def nga xam ne lam ci jublu rek mooy yàlla gis na ko waaye dane allahu yàlla de ak di akbaru aji màgg la loolu xeeti bàkk la ak ak ak ak ñeewantu ci kanamu borom di toroxlu ci yàlla na yàlla de ku màgg la bi maa ci lépp loo xam ne kuntu nekkoon naa affanloo di ko def waaye man sëñ Tuubaa de walastu déet axsa may aj ragal si wallahi ku yàlla waaye nag wala arjo déet may yaakaar si wallahi ku dut yàlla bayit yu demee ni mu bëri na fu mu koy wax ci bayitam yu bëri bëri di wane ne moom dee ragalut ku dut yàlla waaye du yaakaar ku yàlla waaye du jàmbat ku dut yàlla moo xam ak tumurankem la moo xam ak doodem la moo xam ak toroxlu la lépp yàlla la koy jox waaye du ko jëmale ci benn bindéef bindéef mu ne sikri wa sukri wa rilwaani wa mahmadati lil xalbi wal jismi wal axlaami lillahi mu ne sikri sama tudd yàlla wa sukkur ak sama cantuk cër wa ridwaan yi ak sama ngërëm wa mahmadati yi ak sama cantuk xol bil xal bi nekk eh, wa wa mahmadati ak sama cantuk làmmañ bil xal bi nekk na ci xol bi wal jismi ak jëmmu ji wal aqlaami ak xalima yépp lillahi ngir yàlla képp sikir mooy bil xal bi wa sukkur yi nag jismi mooy yaram bi aqlaam nag mooy mooy mooy di delloo yàlla njukkal eh, maanaam xalima gi muy bindee loolu ak cant la koy ak cant la koy tuddee moo tax ma ne sikri bil xalbi wa sukri wal jismi wa ridwaani wal aqlaami lillahi wa mahmadati mu ne sikri sama tudd yàlla wa sukri ak sama cantuk cër wa ridwaani ak sama ngërëm wa mahmadati ak sama cantuk làmmañ bil bi nekk na sama xol muy tudd ga wal jismi nekk ni sama jëmm muy cant ak cër ya wal aqlaami nekk na sama ngërëm muy xalima yi moom lay delloo yàlla di ko gërëm di ko di ko nag di ko rek te lépp dama koy def rek ngir jëm yàlla mbokk yi xool leen fu ne béy bi nu mu feesee dell nga xam ne fu ne wax na ci soxlaam wax na ci euh, li tax euh, lan mooy objectif am moom jëmi Serigne Touba zikri wa sukuri wa ridwaani wa mahmadati bil xalbi wal jismi wal aqlaami lillahi béy bi dafa fees dell ci wàllu balaa waaye rafet waaye nag fees dell ak tawhid boo ubudiyatu nga xam ne jël na léppam jox yàlla moo xam heure bu ne rek mu ngi tudd yàlla heure bu ne mi ngi sant yàlla di def effort di jaamu yàlla eh, heure bu ne yàlla nga koy jox ay xéewal heure bu ne mu ngi gërëm yàlla waaye mu ngi sant suñu borom tabaaraka ci cantu xol ak cantu cër ci lépp ci ak cantu jëmm waaye nag di ko cant di ko jaare ci ay xelimaam nga xam ne tabaaraka xasida yi la ci jublu waaye majas la mu ne sikri sama tudd yàlla wa sukri ak sama cantu cër wari diwaani ak sama gërëm wa mahmadati ak sama cantuk làmmañ bil xal bi ànd ko sama xol muy nekk na sama xol muy tudd ga wal gis mu jëmm ja nga tabarikalla ah, wa sukkuri wal gis mi nga xam ne noonu la ko ràbbalante wal gis mi ak jëmm ji wal aqlaami ak xalima gi yépp lillahi ñeel na yàlla di ko tudd di ko cant di ko kañ di ko bak guddi yi ak bëccëg mu ne kulli li rabbiya fii sirin wa fii alani wa lastu asalu xayra naafi allahi nee kulli sama lépp lépp lépp li rabbi ñeel na sama borom gis nga gën na ko feddale Euh, ci sariya la fii sirin moo xam ci xaqiqa la waa fi alanin wala ci sariya bu dee sirran mooy ci xaqiqa mooy biir gi nga xam ne yàlla moo koy atte nga xam ne nit ki tey mën naa julli ñu ne jullim baax na fekk am na lam def mu ngi mel ne man ak yow tey ñi dend ñi julli ma jël ab dix mille dul ko sama poos léegi xam nga fi ne ñaar ñëpp julli nañ waaye biñ jullee ba ci digg ba da ngaa jël sa ko dugal ko sama poos jël sama kayit dix mille te la buñ paree sariya daay wax na julli gi baax na waaye xaqiqa moom danaan julli gi baaxul yàlla na xeexi li nga def dara baax gut ci li xaalimul xëy wa saadati fa yun nabi tax baakum taxmaloon sariya boo ko déggee mooy jëf yii ñuy attewoo ci saa yi waaye baatin ba nag moom yàlla moo koy atte nee nag sama lépp ñeel na yàlla moo xam lu nëbbul ak ci lu feeñ kulli sama lépp li rabbi ñeel na sama borom fii shirin moo xam ci lu nëbbula wa fi wala ci lu feeñ xayra naafihin kudut aji aji jëriñi ji yàlla mi tudd annaafi gis nga tur yu muy indi nga xam ne yàlla ku jëriñ mi ngi lay jëriñee ci turam wii di naafion moo tax mu indi tur wii di naafion nga xam ne wane na ne léegi buy ñaan yàlla ki koy may mooy naafion waaye ki koy may du keneen ku dul naafion moo tax mu ne walastu déet man ba tuba alu may ñaan xayra naafihi ku dul yàlla mi aji jëriñi ji lillahi te mooy yàlla wala nga ne laahi te mooy yàlla moom képp képp képp képp lay ñaan xoolal tawhid rek jox naa sama lépp yàlla moo xam lu nëbb la wala ci lu feeñ te du ma ñaan ku yàlla ku mën doon rek du ma la ñaan man daal yàlla bu tudd naafion moom képp képp lay ñaan waaye ku dul yàlla rek te sama lépp moo xam lu nëbb ak ci lu feeñ ndax nit lu nëbb ak lu feeñ leer laam sëñ Tuubaa naan jël naa sama lépp jox ko yàlla sama lépp jox naa ko yàlla walastu asalu xayra naafian laay na rëddiitu gërëm loo naa xaan naafian walis aji jëriñi ji te yàlla baaqin ki nga xam ne mooy aji def ji wa askuruhu te danaa ko sant ilal jinaani ba rek may tabbi aljina bi xawli sama wax daal alhamdu mooy mboolem xaaji cant yi lillaahi ñeen na yàlla nee na gërëm naa yàlla mi nga xam mooy aji jëriñ ji xam nga daa waxoon ne man de du ma ñaan ku dul naafion nee na gërëm naa yàlla mi nga xam mooy aji jëriñ ji ga daa waxoon ne man de du ma ñaan ku dul naafion léegi nag mu ne gërëm naa naafion moom waaye nag ki nga xam ne moo tudd albaqi mooy ki fay des ba faw nee na de dama koy sant ci effort ci jëf di yëngatu def ay effort di ko jaama guddi ba ci ba keroog may tàbbi aljana ba aljana ji nga xam ne daal bu ñu fa duggee ñëpp mooy seen wax mooy alhamdulillahi la si hadaana li hasa wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah sama wax daal man Sëriñ Tuubaa mooy cant yëpp mboolem xaaji cant yi daal ñeenti yëpp moo xam cant gi nga xam ne bindee fi dañ koy sant seen biir moo xam sant gi yàlla sant boppam la moo xam sant gi mu sant jaamam mboolem ñeent mboolem xaaji cant yi ñeent yëpp jox naa ko suñu borom tabaaraka wa taala moo tax mu ne raditu gërëm loo naa an naafeen gërëm loo naa an naafeen yàlla mi nga xam ne mooy aji jëriñe ji baaqin yàlla mi nga xam ne mooy aji def ji wa askuruhoo te danaa ko sant ilal jinaani mooy dinaa ko jaamu rek ilal jinaani ba kere may tàbbi aljana bi xawli sama wax daal man sëñ Tuubaa mooy alhamdu mboolem ka cant yi daal lillahi aji sax la ñeel yàlla suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne gis nga leen mboolem tawhid gu mat sëkk lay jox suñu borom tabaraka wa taala